à a des gërëm également euh, ki nga xamne rek euh, moo di euh, Lalla ak ki nga xamne rek moo di Dame ci émission instant matin bobé ginnaw gi également jot nañu ñew ak yeen ci li nga xamne rek mo gëna fess ci xëttu yene kayo di Aïssatou ak ki nga xamne rek moo di Soxna Lalla ñu fas yéene way ak yeen ci suñu édition ànd ak yéen également ci émission bi la di 100 politique mu nekk la seule émission bi ñi permettre ñu daal di faram-fàcce waaye daal di également daal di xóotal li nga xamne rek moo di actualité yi nga xamne rek ñoo ci gëna fess fës ñu am mbégte ak contentement bu baax baax di nuyu ñëpp ñi nga xamne rek à pareille ñu ngi ñuy teewlu duñu bàyyi xel té nag ñoo am mbégte ak contentement di fi dalal ko xamné bokku na ci li euh, nga xamné rek modi di kër diine également ñu leen di solliciter lu bëri bëri par rapport ak situation bi nga xamné euh, mom le Sénégal di dund actuellement euh, di Baye Niass donc nak fofu ci diwanu Kaolack Cheikh Baye Niass donc ñu fassiyene yéene waxtaan ak mom lu bëri bëri ci l'actualité politique donc kilifa gi ñu ngi lay nuyu ñu bari rek na dal di nuyu ak mbokku internet wa waaw alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu wa aduna ñi sétal seetaan ñëpp. Mm-hmm. ci chaîne bi nga xamné moy Dakar instant. di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi surtout rawatina ñuy lislaam yàlla bàyyi leen ba suñu kanam ba ci kanam kanam incha allahu rabbi <laughs> di la nuyu timit di nuyu waa kër gi incha allahu rabbi jërëjëf Eh, jërëjëf kilifa gi en tout cas am nañu mbégte bu baax dalal la ci li nga xam rek moo di waxtaan bi certainement nag waxtaan bi li ci gën a fës eh, na ci sur l' affaire Ousmane eh, Ousmane Sonko ak Adji sar bi nga xam ne mu ngi di sukki un peu cette actualité et puis ñu bëree bëri sax di interroger wu tey lan mooy taxawaayu kilifa diine yi ginnaaw bu ñu ko yóbboo ci li nga xam ne rek moo di chambre criminelle yow sa jàngat par rapport ak diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñaari at ñaari at a ngi ni dossier baa ngi ci kanamu yoon fukki nit ak ñeent jot nañ ci ñàkk seen bakkan ñu bëri bëri également jot nañ ci ñàkk li nga xam ne seen liggéey tay ñu yobbu ko ci chambre criminelle ñu naan Ousmane Sonko dina dem ak du dem lan moy sa réaction waaw man lima ci gisee jàngat bi ma ci am rek euh, damay profiter wàllu tamit di jale ñi nga xam ñak ñàkk fi seen bakkan depuis at ba ñaari at mhm. waye jangga bi ma am rek moy euh, lépp dañoo war a jël ko rek delo ko ci loxo yalla ndax lo depuis ñaari at ñu kotek ko tek ci hamne, place bo di wax tay ni la suba ni la tay ni la suba ni la dem nañ léegi ba jël dossier bi yóbbu ko ci sens boo xam ne amul damay wax ne sax amutul amul amul benn rendement boo xam ne foo lañ koy mën a yóbbu ñun li ñu soxla ñun tey mooy loolu ñu jël ko mu féetoo boor wala ñu jëm ko xool nu ko réglé pour la pour defar defar réew mi defar Sénégal ba nga xam ne xar-xaram bi ñu gisoon bu njëkk ci Sénégal ñu delloo si ko waat. mais fukki nit ak ñett aussi ñu ñàkk seen bakkan sëñ bi. waaw xam nga tey par exemple damay wax ne. mën naa ne tey buñ ko tey buñ delloo ci ginnaaw ci alquran wala ñu delloo ci islam rek dañu xam ne tey dama wax ne ñooñu foofu la seen bakkoon waroon a rotee xam nga tey loolu boo fa delloo rek doo doo ñëw ne Macky Sall moo leen rey doo ñëw ne Ousmane Sonko moo leen rey. mais est-ce que loolu aussi du xaw a yomb. waaw buñ ko ci lépp. waaw déedéet ay fee am fii. non xam nga xam nga ñu gis ay image waa xam nga image yëpp gis nañ ko xam nga gis nañ gis nañ ci ñu ci yore pistolet di tirer gis nañ ñu ci yore nangam ay ngànnaay génne ay nervi di dóore loolu amul benn njariñ xam nga man li ma li ma li ma li ma li ma bëgg gars yi xam ko rek mooy ñu xam ne ñun réew mi bu jegee ñun la jagal su jagul tamit ñu xam ne tamit ñun la ñàkk jagal waaye kantaa comme par exemple tey li am am léegi tey Amérique tey boo fa demee tey misaal bu la ci jox da ngay gis ne tey da ngay tiim policier di ko saaga di ko wax lu ne du mos a dóor dóore moom fii rek la am Sénégal te loolu dafa war a jeex xam nga tey dóoru yooyu noonu moo waral dem ba indi ay moor mooy dem tey ba indi tey ñu ne diw tiré na bal vere la dóor kii rey ana ñu fi rayoon ci université bi dañ leen a déggati ana ki fi génne woon téepi sale dóor ñëpp teg ci seen bët léegi genre nit yooyu noonu ñu bëgg leen a jël ëllëg teg leen ci kanam réew mi ne ñoo ñuy jiite loolu dina xaw a ñaaw ndax tey am na fi koo xam ne tey mu ngi tey mu ngi mu ngi mu ngi soxla réew mi wala mu ngi soxla benn benn benn benn affaire mhm. te kooku dafa génne pistolet carrément ñu koy gis avant Macky Sall di toog ci di toog ci président da ngay gis ne ay ñoom Moustapha Niasse yoroon xeer xam nga tey ñun buñ gisee ci ay mag yoo xam ne seen xar-xaram loolu la kon ñun ndaw ñi bu ñëwee li ñu jàpp rek mooy affaire bi xeex la dañuy jël ay yat ak ay xeer ak ay pistolet def lu ñu neex ok mais cette fois ci nag ci viol la ñuy wax wàllum siif siif bu bari ak li nga xam ne moo di menace de mort tey ci wàllum siif naka lañu koy définir ci li nga xam ne moo di ci téere beeg yi ni xam nga xam nga xam nga tey euh, nga fekk tey nit koo xam ne tey mhm. dañ ko yar fi ñu ko war a yaree jàngal ko fi ñu ko war a jàngalee nga jékki-jékki rek dem dugg ci moom direct pour suivre ko loolu moom damay wax ne bu dee jullit nga moom jaru sax nga ciy jéem a dugg. xam nga mhm. ndax tey lislaam tey am na lu la jàngal am na lu la tegal. xam bu dee góor nga dem ba ba mat waxamaani ba ba ne ba nekk mu kalaf mhm. li war ci yow rek mooy nga dem uti soxna. gis nga yàlla maandu gi maandu moo tax mu ne boo leen mënee takk ñaar ba ñett ba ñeent ngir lan. ngir ñu bañ a dem def nag su dul noonu nga siif nit ki walla nga taxaw nit di wax ak yow nga nga nga nga nga jublu ci moom ne ko léegi léegi dama lay rey walla dama lay nàngam xam nga tey damay wax ne loolu yëpp tey gis nga gëm yàlla bu nekkee ci sa xol bi. Mm. nga nekk jullit xaqiqatan loolu yëpp du nekk ci yow waaye problème bi mooy léegi ñi war a wax ñoo waxatut amatuñ jàngaleem lislaam amatuñ jàngaleem mag ñi moo tax te yii nga gis ni Sénégal rek day gën a bëri. te du ko. Mm-hmm. du ko. ay tëm rey léegi léegi léegi bakkan loo xam ne ñun ci réew ak yeneen réew jeune Afrique yi dañ ko daan gis ay Nigéria ay gaana yooyu lañ daan gis yenn kii waaye tey bu ñu demee tey ba nga xam ne tey da ngay gis ku dugg ci biir kër léegi fekk fa benn xale bu jigéen ak yegg ci kawam wala mu dugg ci benn place boo xam ne gis fa nit daal di jël alalam dóor ko. loolu yëpp ñàkk génnee asaka di ko joxe. xam nga tey bu bu yàlla wax ne jël leen seen alal di ko joxe. Mhm. lii rek la ci lii rek la ci bañoon ñu dem tey ba askan bi xiif. ñëw fuqarti li nga yor. ok mais de ki ñu koy tuumaal dañu jàpp ne c'est un présidentiable mën na jël li nga xam ne moo di nguur gi ñu koy tuumaal lu jëm ci wàllum viol est-ce que jàpp nga ne quand même loolu du xaw a indi des effets néfastes par rapport li nga xam ne moo di. loolu ci wàllum ko dina ko yàqal ndax boo seetloo rek sénégalais yaa ngi koy wax ñun kuy kuy kuy kuy kuy violé di ñu jiite kuy nangam di ñu jiite xam nga tey ku nekk rek nekk ci réew mi rek bëgg nga am sa sa sa kayit. pour ba ëllëgee duñ wax yow criminel nga wala rey nga nit wala mus nañ laa téye ci kaso yooyu yëpp yaa ngi koy daw léegi nag ni ngay dawee loolu rek loolu nga koy dawee xam nga li ma la wax mhm. wax ne tey kilifa am na tey ni muy nekkee ci biir këram ñëpp ku ñëw rek day xam ne kii kilifa gi la kilifa am na nu muy nekkee ci biir këram ku ñëw moo tax buñ jàpp ne man warumaa doon président rek lii may def rek jomb ko dafa am loo xam ne waroo koo def waroo koo def waroo génn waroo dem xam nga li mooy bul jàpp ne tey man Sénégal déggu xamuñ ma dégguñ ma bés dana ñëw danañ la xam. kon de fexe la raxas sa der bi. kon da nga jàpp ne Ousmane Sonko la fait mu dem ci salon bi dafa fóote. waaw dafa def fóot. ok man foofu dem man foofu du ma d'accord moom ndax moom génn na public ne moom dem na weddiwul ne dem na. Mhm. waaye viol bi ñuy wax nag amut. mais nañ dem fa it du crime de. Hmm? nañ dem ci salon de massage du crime. waa xam nga tey damay wax ne tey par exemple tey. l'islam am na lu la jàngal ci diggante jigéen ak jigéen jigéenu góor. te téere bi yaakaar naa aayawul ko téere bi ngeen jàng. déet xam nga tey ku nekkul sa jabar waru laa teg loxo ku nekkul sa jabar waru laa teg loxo. boo feebaree nag. ah boo feebaree war a faju. boo feebaree war a faju. waa fekk xam nga tey par exemple boo xam nga tey par exemple tey boo feebaree xam nga loolu ci jaamu yàlla bokk da ngaa war a faju. tey ki lay faj tey kooku amul intention sa diggante moom xam nga tey lo nuyoo bi ngay jël di ko jox jigéen. sa bi nga jël di ko jox jigéen boo gisee ñu koy aaye lu ñu ci bañ pour nga ban a bànne bànneexu ci moom am na am na ci ñoo xam ne rek nuyu buñ nuyu jigéen rek dañ ciy yëg bànneex waaye fekkee ki nga xam ne nag moom da ngaa dem hôpital pour mu lay faj kooku xam nga ko feebar du tal ay bànneex koo xam ne dangaa wéri di doo tal bànneex waaye kantaan nag fi nga xam ne dañ place la boo xam ne tey boo fa demee tey tey man mi tey bu ma fa duggoon tey ñu xam ne tey dañ may jël di ma bës xam nga hmm. te doomu aadama doomu aadama la Ousmane Sonko wàccee wuñ ci moom alquran hmm. Ousmane Sonko du yonantu Ousmane Sonko doomi aadama la bëgg-bëgg yi doomu aadama di am da koy am yëg-yëg yi doomu aadama di am da koy da koy da koy yëg. pour nee na laaj na sëriñam mu ne ko loolu dara nekkul waaw waaw xam nga tey moom moom moom nee na sëriñam la laaj wala ustaasam mu ne ko loolu dara nekku ci. Hmm. waaye man fekkee koo xam ne dañ lay topp di la tuumal yow yaay daw. man su ma su ma su ma doon déggal dama naan Ousmane loo mën a daw daw ko. koo xam ne yow chaque jour ñu ngi ut benn motif buñ la kii buñ la teg pour pour jàpp la. Hmm. kon yow moytul ak bu la ko sa sëriñ digalee sax moytu ko xam nga lu ma la wax moytul ndax tey yow ëllëg tamit man naa man na tey tey Ousmane Sonko tey bi nekkee demee ba nekk président ñaanuñu yàlla li am fii ci Covid bi amaat. kon boobaa moom bu joxee décret kon da nga gis koo xam ne tam tam mu fipp sax ne ma damay génn ndax année bi mu ko fi defee moom dafa génn. tamit loolu tamit lu jar a sóoraale la. ok tey moom la ne mbir mi dañ ko complété parce que tudd nañ ci ay ñoo xam dañu jege état bu Sénégal que. man nga and ci kàddu yooyu mu ci ke mbir bi complot la dañ ko bëgg a tere mu doon candidat en 2024 et cetera. waaw loolu la rek ndax xam nga affaire politique moom xeex la rek affaire politique xeex la doo ma jiite waroo maa jiite dinaa fexe xool nu ma complot yow ba yàqal la. Mhm. moom loolu dafa am loolu moom leer na ñu gis nañ ko. waaye nag bu mu tax tamit polit complot boobu am ba mu tax tamit yow mu jaral la tamit nga def naka su du noonu wala nga wax askan bi loo leen war ta wala nga def tey loolu xam nga tey yi ko fi doon am am na koo xam ne génn na dàq nañ ko génn na wax. Mhm. chaque jour ñu gis kenn dee na kenn nangam na kenn lii na kenn laa ci lan ci affaire yu ñàkk ma lii li xam nga li ma ko jàppee man dama jàppee ay mag ñu ñàkk fayda ñoo ci nekk rek mhm. matt ko rek bañ a bàyyi. ñun xool avance réew mi moo gën. man loolu laa gis est-ce que amul sa ab fonds de commerce bo xamni mo ci parce que. on lo tok 2 loo toog ou trois jours déggloo ñu ne Adji Sar Ousmane Sonko fi la toll finalement les gens en parlent. ndax tay yeen yeen ñep ci ngeen ci ngeen jaay seen journaux yi lolu bu amul tay bo tay bo leen déggul ciow am benn biru am tay mhm. ci ngeen jaay seen ci ci ngeen jaay seen journaux yi yeen a ngi ciy commerce ñeneen ak ñeneen ñu ci commerce ñeneen ñeneen ñu ci commerce sank ba euh, ki démb déggoon nga ñu ne Adji Sar dem na États-Unis mhm. wax na génn réew mi am ñu taxaw weddi ko yaa ngi dégg nga dégg ne keneen tamit jox nañ ko ci nangam def nañ ko ci nangam man jàpp ne daal gis nga daal euh, cheikh bi mhm. man li ma gëm ba gëm ko mooy lii daal yëfu caaxaan la man mbir mi mhm. fi mu ni dafa commencé dafa commencé soof nit ñi ndax ñun ñu ñun ñun kilifa diine ñu ngi ciy dégg lu ne mhm. ñu ngi ciy wax lu ne ñu ngi ciy xas suñu sëriñ si ñu ngi ciy saaga suñu sëriñ si ci loo xam ne jaro ko woon nañ ko jéem a ool teg ko ñoom ñaar bu ku ku ci bu dee aji saar moo wax dëgg xam na bu dee Sonko moo nekk ci dëgg xam na yàlla moom xam na li muy atte te lu dul dëgg du yàgg. bu doon juróomi at tamit dëgg gi dana feeñ. ok mais dañ fi gis nag kaaw ku mel ni Khalifa Bakar Sall ñu ne dañ ko daan doole nëbb ko jant bi Karim Meïssa Wade également ñu jàpp ne il est présidentiable ko doole nëbb ko jant bi est-ce que peut-être tax Ousmane Sonko woote nañu ko aar. te ñu gis ci ah, askan bi xam nga tey yow teg nga ci sa bët man teg naa ci sama bët. Macky Sall bi mu ñëwee toog ci bi mu njëkkee toog rek li mu def rek dafa jël Karim rek jenc ko. xalifa mhm. Sall bu jël ko rek jenc ko ngir lan bañ ñu ko ñoo xam ne dañuy ñëw di ko attaqué. léegi nag bu Sonko génnee nag Sonko xam loolu moom bi dafa waroon def attention tamit di gën a moytu nu mu gën a moytu mu koy moytu. ok tey loolu rek la. affaire poli loolu yàgg na fi. Abdoulaye di mii ba ba am na jamono joo xam ne bëggoon na tëj bëggoon na tëj bëggoon na tëj Macky Sall. Macky dem ci sëñ Baara. sëñ Baara wax ak moom. ñoom bugguñ wàllu ñooñ politique ñoo mel noonu ñoom bugguñ koo xam ne daf leen di teg soog di leen di sonal. dañuy fexe luñ mën a def ba ki day te loolu am na sax ci réew tubaab yi. Mm-hmm. ñu xamee ni kii nii leader la boo xam ne daf leen di sonal dañ koy jéem a tiire bal. ba ci Afrique gii nii ba ci Nigéria gii rek fi ne nii mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi tàkk. Mm-hmm. Nigéria gii jamono ji mu ngi tàkk te dara warul ko lu may politique bi moo ko waral. ok tey mbir bi yóbbu nañ ko devant une chambre criminelle ñu war a juger Ousmane Sonko dina dem ak du dem dina ci ànd du ñàkk mais quand nag nga gisee loole ñu bëri jàpp nañ ne tappale moo waral li ni mel ci dossier boo xam ne ñu doon seede ñëpp jàpp nañ ne viol amul fa. waaw xam nga xam nga tey par exemple euh, ñëpp seede nañ ñëpp wala ñëpp tey ñu ci ëpp tey wax nañ ne tey viol amut. Mm-hmm. yaa ngi dégg mooy li ma la wax dañuy delluwaat ci question bi nga posé woon rek ne ay pexe ay pexe moo nekk ci suuf. Mm-hmm. pexe yi nekk ci suuf mooy pexe lan mooy fexe ñu xool nuñ mën a def ba jéem a téye Ousmane Sonko. Mm-hmm. pour lan pour boum dem candidat 2024. comme je fi dit, mhm. pour boum dem candidat 2024. Montage leg ñu ne dañ ko crime dina dem ak du dem buñ ci aggé dana mais yow lan ko fay conseil yow. Ousmane Sonko mu dem wala dem man man man gannaaw mom dafa paré taxaw pour jité réew Sénégal wala la bëgg suñ ko na dem. Mhm. wax le wax wax ak peuple histoire réewum jàmm la ndax gannaaw ki fi nekk mooy nekk njiitu réew mi demal uy ji man man man ci man personnel man dama naan ko demal nga uyu ji soo demee uyu nag danga am dëgg ñaata yoon nga dem dañ la fay téye ba benn heure ñu bàyyi la gis nga ku yàlla pare ci yow pare na ci yow ku yàlla parewul ci yow nag parewul ci yow gis nga bu yàlla waxee ne Ousmane day tëdd kenn mënu ci dara day tëdd bu yàlla waxee ne Ousmane Ousmane Sonko du tëdd Macky Sall mënu ci dara keneen ak keneen mënu ci dara waaye daal ala kulli xaal li mu ci mën a xam daal ba mën ko xam balaa ñoo ciy àgg mën nañ waxtaan mën naa feeñ solution mën naa feeñ bu ñu waxtaanee danañ jubóo. ok solution boobu ngay évoqué gisoon nañ ko ci mois de mars bi fii coow bi amoo am na ab kuréel gu taxaw mu di MDD dem seeti kilifa diine yi ñu waxtaan et mais keroog gis naa Ousmane mel ni kuy alerter wala kuy junj kilifa diine yi fi ñu toll nii lan mooy responsabilité kilifa diine yi comme yi nga ko waxee ñu ngi toog leen di wax kàddu yu ñaaw di leen di saaga excusez-moi du terme et tout lan moo war a mu nekk tey taxawaayu kilifa diine yooyu. waaw kilifa diine ñoom ñi nekk li tey par exemple dama ciy cité ñett <laughs> sëñ sëñ may may suur Mansour ak ak Cheikh Mouhamadul Mahi Niass. boo seetloo Cheikh Mouhamadul Mahi barki démb jóge na jóge na jóge na na ci président. wax ak moom. nit ñi nag génne nañ ay wax ay rumeur ne lii ko tontu lii ngi dégg. yow jot nga am bi. ah jot nga am écho ci li ñu waxtaanee. non li jotuma cee am écho ndax ñoom ñaar la ndax ñoom ñaar ñoo toogoon doon waxtaan. waaye li ma ci xam daal nit ñi génne nañ ci ay wax waaye kilifa diine ñu ngi wax. Mhm. kilifa diine li ñu mën ñu ngi koy def tey tey ku nekk tey bëggul sa bàyyi génn wax bu waxee ci kaw Ousmane Sonko ci ci kaa camp bële gars yi saaga bu waxee te loolu du neex sax nit waaye kilifa diine yi moom lépp lu ñu def ñu ngi koy def te terewuñ waxu terewuñ dañuy wax rek ñu boole nañu wax ak di jëf ci suuf hmm. di jëf ci suuf yoo xam ne yëfu baatin la ba nga xam ne réew mi dafay dal te dafay am jàmm te man gëm naa ne sax jàmm rek moom moom moom mooy am hmm. ndax tey lii nii tey boo seetloo depuis ñaata at ba léegi ñu ngi ko topp depuis ñaari at apparemment ñaari at ah. ba léegi ñun ñun amuñ benn avancement boo xam ne teg mën nañoo wax ne lii nii lii la ñu jural tey dañ ciy perte suñu alal xam nga tey tey policiers yi fa nekk ñun ñoo leen di fay. président ñun ñoo koy fay ministre yi ñun ñoo leen di fay. tey loolu suñu alal lañ jël tey di ko jëbb di ko joxe. oto oto gendarme yi ñuy génnee dañuy dañuy duy essence waa léegi nag lan ak lan nga gis tey. pour lan kilifa diine yi dañoo wax a wax a wax fekkee nag dañoo nekk xam nga tey man xam nga man fu ma ko teg. Mm. yàlla daf ñoo jéppi. jépp gim ñu jépp moo tax mu wàccee ñu mais gars yi nee li ñuy wax dañ ko war a fësal nit ñi xam ko mais bu fekkee ñaan ñu ngi wax rek derrière moi après dañu ko waaw léegi léegi léegi fekkee kilifa diine te ñaar nit bu ñuy xeex nit ku tooñ da ngay am audace ne ko yow yaa tooñ waaw xam nga tey kilifa diine tey xam nga tey xalifa dafay tëddee njaaxanaay tey boo gisee tey ci kër gam dëkk parti bi mu ngi fa parti bi mu fa parti bi mu fa parti bi la mu fa fekkoon ku ñëw rek nga addu wax ak moom rek wala ku ñëw rek nga kii ñoom li ñu war a wax ki ñu war a wax ak ñu ngi wax ak moom muy président de la république Macky ñu ngi wax ak moom comprendre Ousmane Sonko li ñu ko mën a wax mu dal wax ak peuple bi gannaaw léegi ndaw ñëpp uy ji nañ ko loolu ndimbalu suñu borom la te yàllaa ko def kenn mënu ci dara ndaw ñëpp dem nañ uy ci ko ñu wax ak nag xale yi dal ñiy wax ak président wax ak président xam nga tey man mënu mënumaa jotee président te man su ma jotee noonu man ñeme naa ko wax ne ko dimbale ñu lii amatul benn njëriñ ñaari at ba léegi ñu ngi ko topp isa duñ ko teg ci suuf jéem a yàllaa koy joxe ñun nañ gëm ne Macky Sall bés dafay ñëw dafay wàcc na def na fi ay liggéey yoo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët waaye nag bés dafay ñëw dafay wàcc. Ousmane Sonko mi tey bu yàlla waxee ne day nekk président Abdoulaye Wade tëjuñ ko fi. Mm-hmm. ah plusieurs fois même. Abdoulaye Wade ñaata yoon lañ ko téye. Mm-hmm. kon léegi Ousmane Sonko na xam loolu loolu da koy jox pouvoir ba nga xam ne pour mu mën a jiiti réew mi sax da koy xam. ok. ñoo gis ginnaaw bu yóbboo mbir mi chambre criminelle moom Ousmane Sonko mu oote benn méga meeting ci Kër Massar ñu gis am mbooloo mu sakkan boo xam ne ñëw nañ woy si ko. Mm. ci yooyu également am na kàddu yoo xam ne jib nañ fa mooy moowu gatsa gatsa dootul may dara ki nga xam ne moo di njiiti réew mi dem na sax banaan mu jël sama bakkan wala ma jël bakkanam certainement am na ko nit ñi di interpréter et demee ci ba dëkk bi toll ci ay propos yoo xam ne jàpp nañ ne euh, carrément dafa xaw a dépensant peut-être lan moo war a mu nekk taxawaay devant les acteurs. waaw mooy comme li ma waxoon rek. Mm-hmm. ñun dafa am loo xam ne xamuñ ko kon bu ñëwee ci réew mi rek ñëpp di ñëppay tiit ndax tey lii nii lu ñu ko may jàmm moo ñu ko may li ñu def nii toog nii ci plateau bi nii jàmm ko may suñ doom yi jigéen ñi ak xale yu ndaw yi nga xam ne ay élèves lay tey bu dara amee école yëpp ay arrêté kon man li ma koy lancé message mooy Ousmane Sonko ne ko ndaw ñi uy nañ uy uy uy si nañ la te ñu ngi lay déggal nañ la mbir mi nañ ko teg ci loxo yàlla Ousmane Sonko xam nga depuis ñaata at ñu ngi ko topp. mais wàllum politique lañ nekk da nga may wax yàlla. waaw xam nga tamit xam nga il faut que tamit ñun ay jullit lañ. waaw ah, mais politique xam nga jaay sama bakkan keneen génn keneen génn li ci nañ xalaat ci nar a laru après xool bu ñu xool léegi léegi. est-ce que du ñaari parti ko war a xool que pas Ousmane Sonko rek aussi. waaw xam tey boo seetloo tey man ka man cas bi may waxee mooy Ousmane Sonko tey li ko li ko ëpp li ko topp tey ci ci xale yi moo ëpp téeméeri junni yoon li topp Macky Sall mhm. li ko topp tey ci xale moo ëpp téeméeri junni yoon lu topp Macky Sall ak bu dañ xalaat tamit bu ñu paree li ci nar a yàqu après ci réew mi tey dana tax koo xam ne kenn du ñemee da nga gis koo xam ne ci mbooloo mën na cee dugg def nag su noonu man daal su ma li may li may li daal di ko ñaan daal mooy ah Ousmane Sonko moom la ndaw ñi uyu moom la ndaw ñi dëggal moom la ndaw ñi bëgg te loolu yàlla def na ko ba pare man li ma koy ñaan mu dal waxtaan ak ndaw ñu ñu dal mais ndaw ñi aussi ñoo ne ko doo dem wuy ji parce que ba wuy jee dañ lay sànq ci politique. waaw dégg li ma la wax il faut que tamit ku bëgg akara dangay ñeme kaani moom moo oote lii bëgg ko na ko ñeme ñun suñuy carte lañ yor ndaw ñi ko bëgg seen carte lañ yor suñu il faut que tamit ñu jéem a ñu jéem a xool lu ñu waxtaanee jàmm am ci réew mi bu ñu xalaat ne kii dafa war a falu rek dafa war a nang wala Macky Sall moo fi nekk rek ba faw déedéet Macky Sall du fi nekk ba faw. ok. du fi nekk ba faw nañ xalaat tam man da xam nga man li may xalaat yéen doo leen ko gis hmm. ku nekk nag ak li la yàlla may ba si basira gi la yàlla may liy ñëw suba nga xam ko man li may gis di ko raf di ko di ko di ko ñaawlu mooy bu suba ñu nekkaat commencé waat à zéro di defaraat dafa am loo gis lu doy waar dama waaw waaw lu doy lu nar a loo xam ne buñ fekkee nii lañ ko nar a nii lañ nar a toogee rek ñun ñëpp def nii suñ loxo rek lu doy dana xew ci réew mi te loolu jaru ko muy lan gàtt sa gàtt sa bu gaa yi woote. waaw gàtt sa gàtt sa gaa danañ génn lakk ay pono sànni nga gis ñi dañ ci profité dugg ci bitigu jàmbur yi toj. bu lis nga lii bis buñ ko ootee ba tey Ousmane Sonko laa wax ah. li xew Nigéria jamono jii damaa ragal dana xew Sénégal. billaahi wallaahi wa taalaay te buñ buñ ci weesoo da nga gis ko matt loxoom di di di di il faut que tamit ñun ñu xam ne tey. Mhm. Euh, euh, ñu xam ne tey Sénégal suñ Sénégal la xam nga bu buñ buñ buñ tuddee yàlla. da ngeen wax ah non politique la tout pourquoi politiciens ñoo gëm yàlla pourtant peuple bi waruñoo gëm yàlla te ñu nekk ay jullit. ok il faut que tamit ñu xalaat loolu man daal ay gatsa gatsa ak nangam nangam yooyu amul benn njariñ. nañ ko teg ci suuf daal. nañ ko teg ci suuf mat da nga dégg ñu ne jël na ay kii yu bëri yoo xam ne pour génn na leen pour ay ay ay ay ay ay. sécurité sécurité boo xam ne dolli wan na ko. boo demee Kaolack am na camp boo demee Thiès boo amee ñu yëpp amul benn njariñ li am njëriñ mooy xoolal ñoo noonu tey ñooñu noonu ñoo gën a sonn tey ci la yàlla bind ci peuple bi. ok te seen fay sax demeewul noonu. Mhm. gassa gassa googu nañ ko def foofu. gassa gassa googu noonu. nañ ko jéem a def foofu il faut que ñu xalaat. ok di dañuy toog gis quelqu'un boo xam ne doon def live mu di Mollah Morgun dëkk sax Kaolack ñu gis ko. mu toog waat ne am na ay vidéo ak ay audio yoo xam ne dugal na Ousmane Sonko ñu delluwaat ginnaaw mu ne ki ko jox yooyu la photo daf ko nax ñuy dem ba gis ay nit ay kilif ñu leen di monter di leen di dugal ci réseaux sociaux et tout quand même loolu peut-être bokk na ci yenn ci ay danger yoo xam ne quand même ñu commencé di gàtte et tout finalement peut-être yooyu yenn la ci ay conséquences yoo xam ne ñu ngi koy dund. waaw xam nga man nga gisee taxawaay déjà Mollah Morgun ak ses révélations yi mu def ak déjà ñu delluwaat si ginnaaw man nawlawuma ko man nawlawuma ko boolewuma ko ci société bi man kooku nawlawuma ko boolewuma ko ci société bi du ma ko déglu moo tax du ma bëgg sax di sori ci ay biram ndax koo xam ne dafa taxawee dafa taxaw ci ci palaasu naafeq xam nga palaasu naafeq boo fa taxawee ñëpp gis la nga génn Ousmane Sonko nangam Ousmane Sonko lii nga xëyaat suba génnaat ñi lay jiiñ te senegal naa la xamal benn affaire de duñ fen de duñ sos duñ kii dem de waaye lépp luñ dégg rek lépp luñ wax rek xamal ne dëgg la. mais ci jiiñ lañu yem ba tey. ah ma ne ci jiiñ lañu yem. waaw ci waaw comme. xam nga tey bëri na Sénégal bëri na ñun ñoo xam dañuy wax rek dañuy wax dañuy wax waaye calculeel wax ñi ñuy wax nag lan ak lan la ñii ne ne fa jox jox nañ ko nangam ci million ci wala ci ay millions yu bëri ñu ngi ko dalal ci hôtel sangam ñu ngi ko nangam nangam yooyu yëpp gis nga ay ay kii ay pexe yoo xam ne buñ xamoon li ci lalu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp hmm. danañ attention ci jëmm jooju noonu ok man kooku nawlawu ma ko moo tax bëgguma sax di di ndax tey yooyu noonu dem na tey gis nga foto yooyu ñu génnee tey dem na tey ba kilifa yi tey ñun suñ suñ Bay yi nga xamne ne ñoo fi ñu ngi leen di taf di leen di monter est ce que est ce que jàppaloo ko aussi que fa kilifa dina wara a alerté wax askan bi parce que bu féké li arrêté wuñ ko quand même dina doy war wa ñan ñoy gën di wax xam nga réew bi légui réewu ma tay la ku ku sa poste fess rek wala ku sa ciép ni la nga nopi lool la da ba pare c'est gis nga Sénégal dafa am sew sew yo xamne defé nek gis nga ki amna ci kilifa yo xamne tay gis nga tay bo génnee di wax bañ jàppaloo otage billahi doto waxati dootoo waxati. kilifa diine yi pour ñu génn wax nan la ñuy def ba génn wax tey ni ni ni ngeen di tey jëlee seen seen seen seen caméra ak seen micro dem dalal nit ki pourquoi yéen mënu leen dugg ci kër kilifa diine yi.

pour lan pour ngeen jaay seen produit. pourquoi mënoo leen dem Kaolack boo leen fa demee da ngeen fa gis benn kilifa diina goo xam ne tey man ta joteewut joteewut euh, télé bi wala jotewut kanam boo leen ko dëkkee seen micro bu ci waxee dana am loo xam ne dana mën a jariñ doomu aadama ndax yàlla mën naa def ci lisaanam ci làmmiñam mu barke genn barke goo xam ne mu am lu wax rek jàmm daal di am ci réew mi bu ñu ko teg ci sëñ Muntaxa wala ñu teg ko Cheikh Mouhamadoul Maye wala sëñ man may Mansour ko teg ci koo xam ne kilifa diine la te ci biir am na ci benn sëriñ daara boo xam ne mu ngi fii nii yàlla am na lu mu ko dénk boo demoon dégg ko seen micro am na nu muy waxee yàlla mën na def ci làmmiñam mu barke loolu ba nga xam ne lii dañ koy teg ci suuf pourquoi yéen mën ngeen a jël seen micro ngeen dem dugg Kaolack wala ngeen dugg Touba ay fekkee da ngeen a toog rek comme gars yi kilifa diine dañoo war a wax kilifa diine a nangam kilifa te kilifa ñu ngi wax quand même kilifa diine ñu ngi wax léegi lan la ñuy dolliwaat lan la ñuy waxaat kilifa diine ñu ngi wax lan la ñuy waxaat mais def déclaration wax ak askan bi ah, baaxul yaa ko wax fi ñu jëm baaxut ci danger la ñu dund ci danger ci moom kañ ci ay sa gàtt sa ma ci ay nit génnee di ko génne ci anam boo xam ne rafetul bu doon sa papa doo ko def et cetera fi mu ne nii waa ma laaj la benn affaire am na loo xam ne barki démb ak démb mu ngi xew ci réseaux sociaux te yéen sa yéen ngeen ko benn waay ju nekk ci tiktok bi taf benn taf sëñ Muntaxa ci ginnaaw amul lu mu ko yekkut man fan yi yëpp damaa am naqaru xol fan yii yëpp damaa am naqaru xol sama biir xol bi te loolu moo ñu gën a naqadi te mënuñ koo faj ah te kooku bu paree li olof di wax naan lii raam ci ñag bi la jëm te bu paree rek ci keneen beneen sëriñ lay dem rek. pare demaat ci beneen sëriñ ay nit ñoo ko ah, ah, ah sénégalais yi ci boppam ñoo bëgg ñun damay wax ne gis nga ñun yàlla daf ñoo jéppi gis nga problème yi am du dara yàlla moo ñu jéppi boo seetloo tey bu ñu delloo tey ci lislaam jumaa yi feesatu tànt bi ñu romb fii sànq la fa nekk ñetti nit nga koy compter te yiw dafay wàcc te place la boo xam ne yiw day wàcc foofu noonu. te xoolal tey boo fi oote woon léegi meeting day fees dell. kon il faut que timit fekkee ñun ñu ngi saaga suñu kilifa yi nit ñi di ci teg bët Ousmane Sonko àdduwu ci Macky Sall àdduwu ci ñooñu Ousmane Sonko àdduwu ci kenn àdduwu ci. x kon man danaa fexe danaa danaa ñeme sama sama sama sëriñ génn damay dem ne ko pour génn bërki démb lañ lay saaga fii kenn dimbalewu la wala nga ne tey par exemple man sama bàyyi tey du génn ndax sama bàyyi li mu war a jot ci réew bi jotu ko dama naan ko toogal nga noppi. ku la seet bu ñu la joxee nga dugal sa poos nit ñi dañoo dem ba loolu lañ gëm wàllu wàllum wàllum séddoo dugal fii nangam ak nag kilifa diine yi billaahi wallaahi wa taala boo xamoon li ñuy def ci réew mi ak li ñuy wax ak bu gudd jotee ñu wéetal seen borom téye seen kurus di ñaan yàlla jàmm ci réew mi loolu moo gën wax ok léegi par rapport ak li nga xam ne ñu ngi ci actuellement lan nga jàpp ne quand même bu ñu ko defoon dinañu ciy génn parce que mbir mi ñu wax ko ñu wax doy na waar et fu mu jëm baaxul am naa su ma waxaatee nga ne ma politique la ñu dellu ci yàlla rek dellu ci yàlla rek mu ñu mën a dimbale. ñun senegal bu ñu bëggee lii nii nga xam ne gaa ngi ko tuddee gatsa sa te réew mi fi mu jëm nii baaxut nañ delluwaat suñu xel yi ci yàlla nañ delluwaat ci jaamu yàlla nañ delluwaat ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa pour lan pour jàmm gën a am ci réew mi. Mhm. yonent bi danaan xeex waaye xeexutaan ni danaan xeexee nii te xeex na ba jot pouvoir ba jot nguuram. te li mu bëggoon l'islam yaatu waaye dafa am nu mu ko daan defee benn saxaaba ñëw na ci moom ne ko mu ne ko tey dama lay jox ndigal pour nga dem xeex mu ne ko su ma su ma demee damay xeex ak ñoom bay mel ni mu ne ko déedéet nga dugal kenn ci diine ji rek moo gën fukki loo jaamu yàlla ay junne at pour nga dugal kenn ci diine ji rek mu ne ko boo demee waxtaana la ñoom nang nangam ak nangam yonent bi sallallahu alayhi wa nit tiim na ko di ko saaka mu koy may téeméeri gëlëm mu xasaat ko mu joxaat ko téeméeri gëlëm mu xasaat ko mu joxaat ko téeméeri gëlëm te saxaaba yépp a ngi toog tiim ko ku ci mel ne Omar ibn Xataab ni dafa daal di tuub ne ko neexul ba neexul waaye yow yonentu yàlla nga jox ko loxo daal di tuub dugg ci diine lislaam waaye su ma saagee Macky Sall rek ñu jàpp ma tëj wala bu ma saagee Ousmane Sonko rek ñu jàpp ma tëj kon il sa kooku jikko bi muy oote jikko jullit bi muy oote mu ngi ci moom ndax kii Seydina Ousmane la tudd kii Makki yu te ñoom tur yooyu ñaar tur yooyu tur yu màgg la te ñoom moom kenn mënta wax ne ñaar ñi moom moom ñoom duñu ay jullit moom. Hmm. force force da nga naan ñii ñoom ay jullit lañ. Ah, kon nag ñoom nañuy jéggale di jëlale. Macky Sall nay jéggale di jëlale lim liggéey ci réew mi gaa yaatu na ndax ñun teg nañ ci suñu bët waaye nay nay jéggale di jëlale. ok beneen dossier aussi mu ngi xaar Ousmane Sonko moo di digganteem ak Mbaye Niang ci ab lu jàpp ne daf ko diffamé dafa yëkkati kàddu yoo xam ne. nañ ma jégal waaye du dëgg ci kuréel googee di Prodac bi nga xam ne fa la nekkoon ñu war a dem procès le 2 euh, mu di jeudi incha allah ban jàngat nga ci def est-ce que da nga bokk ci sénégalais yu naan ndëgg sarax la pour Ousmane Sonko pour que ñu mën ko ci condamné du mën a nekk candidat en 2024. loolu rek la de loolu rek jigéen biy sëy ci kër gi sax du bëgg am wujj wala bu wujj boobu ñëwee rek heure bu nekk rek dana ko utal ay pexe pour wujj bi génn ci sëy bi. ñaata yoon lañ ko fi gis. am na koo xam ne bëggul concurrence bëggul ne kii mooy ñëw pour def ma nangam loolu il faut que ñu xam waxuma la dëgg euh, xaw ma noo ko ci wax dee sax ndëkk sa xaw ma. Mhm. waaye lu garaaw a garaaw la rek rek pour rey ko. buñ waxtaanee ci ñun xam nga man man man man faruma ci benn kaaman mhm. waaye dama lay wax li nga xam ne moo ci nekk tey xoolal Ousmane Sonko lii ñu ko dugal nii te dañ bàyyi ba ci kanam da nga dégg da nga déggaat beneen dossier feeñaat. ok.

yow loo ko téye lu mu yàgg yàgg. kon nekk candidat day waaw moom moom laa lay wax xam nga tey koo xam ne bëggul pouvoir buggul buggul nga gañe ko nga nga nga wàccee ko ci pouvoir bi loo xalaat ci pour mu def la ko dala koy def. ok tey man nag yow bu nekkee ci tali bii di liggéey nga ëpp ma doole ci tali bi damay fexe fexe fexe ba yow dootuñ la dégg dama lay jéem a fay su la fayee kenn dootu la déggati Macky Sall nag loolu la bëgg. ok xam nga buggul bu tey yàgg na fi Abdoulaye Wade bu mu fi nekkee timit loolu la buggutoon Macky Sall fee Sénégalais yi fépp génn dooleel ko dooleel Macky Sall mu jël réew mi. lii timit moo ci nekkaat te moo tax ñun chaque jour dañuy def dara ba pare duñ xalaat dañuy def loo xam ne ëllëg duñ xalaat ne lim ñu mën a jural da ngay dem ba si yàgg fan yi bi jamono bi Macky Sall toogee am lu ñu waxul Abdoulaye Wade de moo ñu gënal kii dégg nga ko fi bu ñu sañoon Abdoulaye laa du fi jugee ko duñ sañ a jóg te ñun ñoo xeex Abdoulaye Wade ñu ñoo ko xeex Abdoulaye Wade def na kut kaw ko pour jéem a téye Macky Sall yàlla dimbale ko téewu ko boobu yàlla tuddutoon ci moom hmm. lay dugg kaso yàlla tuddutoon bindutoon ci xalimaam ne Macky Sall lay dugg kaso hmm. ci la muccee ba nii am ñu ne Macky Sall lu tax muy jël nit ñi di leen tëj dafa xamul kaso bu xamoon kaso du leen tëj du leen dugal ci kaso bi ñi nga ñi nga wax loolu waaye daal waaye daal ala kulli xaal daal lu ci mën a xew Ousmane Sonko bu yàlla waxee ne du dugg ci kaso bi lu dugg ci kaso bi bu yàlla waxee ne dafay dugg ci kaso bi mënu ci dara ndax tey am na ci ñoo xam ne dugg nañ kaso seen dugg kaso boobu bi mu génnee jox leen pouvoir boo xam ne kenn xamul nu mel ci àdduna bi boo boo boo delloo comme li may waral di wax rek du ma la naan la ay benn tubaab bu nekk France wala déedéet dama naan la ci yontu yàlla Yusufa hmm. xoolal dem na ba jiite àdduna ba jiite Égypte nu mu rëyee yontu yàlla Yusufa jiite ko doon lu tax ci ci pexe jigéen lañ ko jaarale ci jigéen lañ ko jaarale hmm. moo tax gis nga réew mii naa la xamal benn affaire na fi sëriñ soo xam ne ay serigne la ra wax de ay doomi serigne ño xamne jamono ji duñ wax ndax dafa am ay pexé yu ñu lalal ba japp len ci ay ndëgg sarax ay ndëgg sarax ba japp len motax mënu mënuñoo wax xam nga tay lolu yeen sa yoolu bay ngeen ci xel ñun ñi tay ay ta da nga tok rek nit ñëwal la daf lay leer ne ki ñëwal ni ay pexé moko ko fi indi dañ koy yoni dañ koy yoni waye bo amé ndimbul yalla yalla mëna la dimbal dimbali Ousmane Sonko tay ñu téeku ok ak ñu té ñu té yoonte yalla Yusufa jigen tax bañ téeku waaye bi mu génnee xoolal dafa dem ba téye àdduna dafa dem ba téye réew ma. ok mais le fait aussi ñu ubbi dossier fii ubbiwaat dossier à côté loolu ça veut dire que peut-être moom mënul rëcc ci dossier. dëgg du mën a rëcc de. xam nga boo nekkee boo nekkee ci benn combat di xeex. yaa ngi dégg yaa ngi am noonu gauche am noonu droite am noonu fii am noonu fii nan ngay rëccee. Mhm. buñ la wëree nan ngay nan ngay rëccee léegi bu ñu demee ba wër ba wër la ndomb nag léegi nag yow yaay def say pexe ba génn ci. ok moom mooy def ay pexe. ba génn ci jàpp ci mën a génn. ah bu yàlla tuddee ne dana ci génn dana ci génn. ok loolu moom ala kulli xaal bu yàlla tuddee ne moom dana ci génn dana ci. moom nga ne kenn mënu tax ba la lu mu gëm man mii tey su ma neexee ma ne. ñenn ci askan bi it ñu gëm la. waaw di ànd ci discours boobu. moom laa la wax di ko ci topp. moom la wax di ko wax. tey man mii su ma neexee tey ne man su man 2024 bii nii far fos man kenn mënta kenn mënta tax ne ba du ma nekk candidat. su ma ko waxee benn waaye dana ma romb sànni ma loxo saaga ma waaye lu ma gëm la. ok ndax tey li nga li ngay sóobu il faut nga gëm ko yonent bi ko yàlla di yónni lu mu ko wax na rasul bi ma un si la. ba pare ne ko da ngay gëm sa bopp ba pare nit ñi soog laa mën a gëm bu gëmul boppam nit ñi duñ ko mën a fekk ci ci ngëm-ngëm googu noonu daal di ànd ak moom. ok mais ci ko bëggoon wax IGF wax IGE. loolu est-ce que jàpp nga ne loolu légal la pour que ñu mën ko ci condamné dem gis naa Pape Alé Niang sax mu ngi rappelé par rapport ak digganteem ak euh, Cheikh Omar Niébé ci ni ko ci condamné et tout. waaw xam nga xam nga xam nga li may li ma lay waxaat rek laa lay waxaat gis nga pexey gouvernement ku ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. ku ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. pour nga rëcc du jar du yomb. ok pour nga rëcc. Mhm. du yomb de. ñun daal nañ ñaan jàmm ci réew man daal man daal dama dama am fu ma wéeru di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di ñaan yàlla ñaari dossiers yëpp yàlla leeral ko yàlla am na ñu teewoon dossier yi anam dégg nga ne ñu ne di diw dee na diw naa waaye yooyu man dama gëm ni daal seen heure dee moo jot rek ñu dee ok seen heure dee rek mooy waaye daal gis nga li ma la mën a wax daal sëriñ bi mhm. nañ ñaan yàlla jàmm ci réew mi daal incha allah moom Ousmane Sonko nee na kenn di ko tere bokk ci élection yi day 24 mais ba tey président de la République waxagul bokk ak du nii wii jot na am sax benn interview fële ca New York Times ci ab journal boo xam ne mu ngi ci États-Unis nee na juridiquement ci wàllum yoon yoon may na ko pour mu présenter woon 2024 déjà naka nga gisee question troisième mandat bi nga xam ne ñëwaat na ci langu politique bi. waaw troisième mandat de gannaaw dañu wax ne yoon moo ko may. Hmm? ci li wax moom ci li mu wax moom. Ah. ah nañ toog déglu ko. ñun suñuy carte lañ yor tudd bu posé troisième mandat bu ñu demee ah ku ko bëgg a woteel woteel ku ko bëgg ta woteel ba woteel ko rek yàlla génne ndam ni te bu yàlla waxee ne du toogaat ci réew mi du mës a toog ci réew mi troisième mandat deuxième euh, quatrième mandat moo yem. mais est-ce que loolu du xaw a yomb suñ carte lañ yor nañu ko bàyyi mu présenté wu te mu waxoon ne moom ñaari mandat la yem. waaw xam nga tey xam nga xam nga mooy li ma la wax ñàkk gëm yàlla weesuwul loolu tey man ma ñëw wax la benn wax. wax la ko ba nga gëm ma gis ma sama image ne ah kii de li ma wax ni dëgg la ma xëy suba war war war ko te nit ki koo day olof day wax mu ne ko war ren ba déwén mu jig la rek xamal ne mbër nga. wax ko bind ko aussi. waaw wax ko bind ko moom laay wax xam nga daf ñoo wax lii bañ gëm ko mu jékki-jékki ñun génnee ko pour waxal leneen pour jéem ñoo war ah nañ xool ren ba déwén waaye man duma toog ci télé bi mukk naan leen nañ fexee rayante ba du posé bu bu bu bokk ci. Euh, troisième mandat bi nangam nangam nañ génn déedéet man loolu duma ko wax. moom de 2012 loolu la waxoon. waaw moo xam moom loolu la waxoon. 2011. waaw mu ñëwaat xam nga wax nga lii ñëw wax lii ñii nag gis nga ñii nag seen wax ji jaru jaru nga ciy dóor sa doom de ñoom ñëpp a yem ñoom ñi nekk ci langue politique yëpp nag. ku ci mën a doon rek laa wax de. am na am na ñuy bañ loolu de nee na ñëpp yemuñu. an kañ dafa fekk dangaa ngaa duggagul rek waaye bis boo duggee ba toog ba toog ba toog ba defaru ba pare. ci ngay soog a xam. am na loo xam ne da nga koo tiimagut tey ki toog ci suuf ci xamul li nekk ci biir saal bi. Ah. mën na taxaw nag fay di mbaw rek di wax waaye bu su duggee ba toog bu dugg ci salle bi. Ah. Ah, ci lay soog a comprendre. pour aar suñu démocratie est-ce que gënu ci moom comme def na ñaari mandat mu abale keneen ñëwaat continuer liggéey bi. waaw loolu de loolu de bu amee moo gën mu abale pour suñu réew mi am jàmm démocratie bi dox. mu xam ne lii lañ indi ci réew mu jàmm Bukhari Bukhari mi nekk Nigéria mu ngi ne leen loolu rek moo ko sonal mm-hmm. ñeneen nag ñeneen Mali gii nii loolu moo moo indi moo taal Mali gii ba ay militaires yor ko mm-hmm. léegi nag bu ñu demee nag ba askan bi fipp xam nga peuple bu fipp moom kenn mën leen arrêté mm-hmm. man nag loolu ay ragal loolu rek lay ragal jàpp nga ne dañuy dinañ yegg foofu ah mën de ak discours yi ngay dégg man ci li ma gëm yenn ci ay déclaration man ci li ma gëm duñ fa yegg man li ma gëm laa wax de li ma gëm man li ma gëm ba gëm ko mooy foofu duñ fa yegg te coow yi yëpp man dama gëm ne dafay jeex te day jàll te man loolu laa gëm te mooy li am tamit dafay jeex alaaji ah. dafa xay dafay jeex gaw ma gaw ma sax lii duñ fa àgg man moom laa gëm man xaw ma keneen de waaye man personnel man Cheikh Baye Niass man moom laa gëm te li ma gëm noonu moo nekk dëgg. nit ku ne nit ku nekk ak sa gëm ko waaye man. ko duñu fa yegg. du am jàppante du am jàppante xam nga nag du ma ko wax ba pare toog dama koy wax ba su ma ko waxee ba pare daf may dem xam nga tamit damay dem jéem a fexe xool jàmm nu mu mën a amee ma dox ko ci ma dox ci bu dee ñaan la ma téye sama kurus ñaan jàng alquran saraxe julli bi lépp lu ma xam ma def ko pour jàmm am. yàlla mën na ma cee mën na ma cee mën na ma cee nangu ndaw si sax toog sax moom mën naa xolam mën naa mën naa seddal xolam rek mu ñaan yàlla rek yàlla def jàmm ci réew mi nga xeeb ko te fekk moom la. am na ci waajoo xam ne bu ngi sol ay sagar nekk ci mbedd bi di foraatu te jàmm ji am ci réew mi ci moom la ko yàlla di jaarale ok sëñ bi yaa ngi naan du am mais dañu gis ay fait mu di ay jëf président de la république ku nekk am nga droit def troisième mandat da lay gën a dooleel gën la jox ndombal tànk ku nekk amuloo droit def troisième mandat da lay dàq ci sa poste est-ce que loolu nekkul benn signal fort. waa xam nga yaa ngi naan du am. xam nga fekke ku wax rek nga tëj wala ku wax rek nga ndax mais interprétation aussi lo am solo la wa nga wa xam nga tay limu moy limu suma su ne sëñ bi ya rafet wa sa sañ sa baxna nga may ma 5000 rafetul nga ne dor leen ko dakh mooy li doon wax dembu rek ne rew mi mo dem ba am fum ton damay ñew tag la suma ñewé gis ki timit ne momit mu ngi may defal loo mi ne ma dem ci mom di ko dila saga la di la xalab fekke Macky Sall bu defee troisième mandat day am coow man am naa droit ne ko Macky dañ lay ñaan ngir yàlla tëddal dossier troisième mandat. nee nañ constitution bi nanguwul ko. waaw fekkee ku wax loolu laa wax dama lay wax ne la fekkee man su ma ko waxee man Macky Sall génnee ma dàq ma te mu nekk man su ma ko waxee di sama wax dina dina dina jàll ma ne ko Macky ngir yàlla yonent bi dimbali ñu troisième mandat bi tëddal ko jàmm am ci réew mi ngir yàlla yonent bi Macky Sall tëjalal tëddalal dossier Adji Sarr bii. ak dossier bi beneen dossier bi tëjal tëjal leen pour jàmm am ci réew mi kooku ku nekk am nga droit wax ko. ok man am naa droit wax loolu. Mhm. fekkee nag ku ko wax nag ci ñoom ci ñi ñi muy ñi muy liggéey ñoom kooku ñoom ñoom la concerné fekkee ku ragal nag bañ a wax dëgg ji nag bu ñu demee fële keroog foofu dëgg foofu amatul lu fa nit a mucc. ok waaw loolu rek mais nu ngi koy jëfee. waaw ñoom ñu ngi koy jëfee gaa waaw ñun ci biir nañu jëfee li ñu yor rek. moom président nu mu koy doxalee. ci ay dàq ay nit ci ay fal ay nit parce que nee nañ droit def troisième mandat. ñim dàq sax xam nga lu ma gëm seen a fa jeex rek ku sa wërsëg jeex rek nga dem. il faut que tamit ñu delloo foofu il faut que tamit ñu delloo suñu xel foofu. yow nag lépp ci yàlla nga ko bëgg a teg quoi ah, te waxtaan bi aussi je pense dépenser de cadre. non en si mais bu fekkee ne am nga ne ma yàlla ah, bëgg léegi il faut que hmm. ñu jël affaire bi léegi ma ne léegi ma songu wala ma wax wala ma wax wax yoo xam ne ëllëg nit ñi dañ dañ ci man naa taal adduna. non waxuma loolu. wax léegi kon kon loo bëgg. waxuma loolu waaw dama la. fekkee aussi li ma la wax nga ne ma yàllaa ko bëggee noonu dafay xaw a compliqué nous sommes en politique. waaw léegi léegi jamono jii ñuy wax ak yow jamono jii ñu toog nii ci plateau bi am na ci koo xam ne tey fim ne nii ma nga ne génn adduna léegi koo kan la yàlla bu dogalutoon lii du du du isa dinaa ñëw ci plateau bi di wax. dama lay laaj. mais man ay fee la lay wax. waaw fee yi nga fee yi nga wax moom laa lay wax ne la moom déggu li ma la wax moom mënu ci dara yàlla li muy def def na ko ba pare il faut que tamit ñu xam loolu. mais bu fekkee moo yor armée yor doole ji. bëggee def troisième man. yow ñi nga fi ëppoon doole ñoo fi nekk ñaat nit nga fi gisoon ñoo xam ne ñoo ëppoon Yaya Jammeh mi moo ko ëppoon doole. Yaya Jammeh li mu yoroon Macky Sall yoru ko Yaya Jammeh laa wax dama lay laaj li mu yoroon Macky yoru ko te dañoo takk armée bi dem dem utali ji ko après fu mu mujj. jàmm amul ci réew moom suy ma ah. yaayaa jàmme laa wax moo ëpp moo ëppoon téeméeri junne yoon Macky Sall doole ci réewam mu jàmm amu fa waaw wala déet jàmm am na fa te guerre naroon na faa am nit ñi takk ay armes dugal fa anamu tey moom bu yoree arme bi ak mu yore gànnaay yeeg mu yore nangam ak te ça conseil ci ñetti le mandat bi lan la. li ma koy ñaan dal bu vous bu posé bu posé candidat da ne tok 3 troisième mandat mandat. hein ta ci mi ah damay ñaan yalla rek mu jëm ko fait rek. ok lim liggéey rafet na ñëpp gis nañ lim liggéey ndax bo troisième tay ci Allah Salum troisième mandat. ci Allah troisième mandat. ngi dégg. Hmm. liggéey na fa amna dëkk yu amutoon courant dëkk yëpp courant ah, dëkk yu tali dëkk yëpp tali. même fi bi mu ñëwee fekk fi ay onze points def na ko ay vingt nangam points yoo xam ne tey. alhamdulilah da nga jàpp ne bilan moom gongo. waaw bilan mu non non nit ki moom loo ko bañ bañ waxal ko dëgg. ok liggéey na. ok loo bañ bañ waxal ko dëgg liggéey ndax man Saalum laa dëkk damay dugg ci àll bi. foo xam ne amutoon courant ay dëkk yoo xam ne mosuñoo xalaat ne dañu dañay am courant ci seen adduna di jamono Abdou Diouf du jamono Senghor du jamono Abdoulaye Wade waaye moom ci ci ayam ci la ko yàlla maye nit ki nag loo ko bañ bañ ak loo ko bëgg bëgg bëgg boo gisee lee dëgg na nga ko ko waxal liggéey na Okay. président liggéey na ci nonu ñu ubbaa benen ponk ci waxtaan bi mu jëm ci terre di train express régional mos nga ci dugam Wa terre bi duguna ci benn yoon euh, jot nga lire article bu Figaro nee na Sénégal moom boobu la TER xam nga xam nga ñun ñun mom moom kon par exemple comme ñom xamuñu sen dossier yi ñu jël signé ñi défar terre beeg nangam nangam lolu coow loolu maa koy dégg way man ma ngi def samay geuss mais dégg nga ciow bu ci am aussi moy copar giñ ci dugal ak Sénégal mom la ak et cetera wa waa xam nga tey fii Sénégal moom lim fi moomul moom bëri na bu dee loolu rek la ñuy wax Sénégal moom lim moomul fii ci Sénégal ak a bëri lu bëree bëri tubaab yee ko jël léegi nag notaire googu lañ bëgg mu dañ. ok notaire googu te dana dañ Sénégal ñoo ko moom ak moomu ko c'est que tubaab yi fu seen intérêt fi mu nekk dañuy ñëw taxaw wax. bu leeree ne ñoom lii seen intérêt la bëgguñ mu yàq wala bëgguñ mu def nangam ndax sénégalais yi dañoo nekk nii ñoo xam ne tey xalaatuñ dara tey ñoom bu ñuy bu ñu génnee pour yàq rek dañuy génn rek pour yàq. ok nga ne yaa ngi amal ay gëstu lan la sa gëstu yi jox. par rapport ak li ñu waxal pare gu ma su ma paree de mën naa ñëwaat ci plateau wax ne lii laa gis ci terre bi lii laa gis ci nangam lii laa dina li dëgg la wala li du dëgg xam nga tey ki génn wax ñi la ñoo def seen seen déclaration rek wax est a que man man man gëm naa leen man li ma gëm senegal ñoo ko moom kan moo ci kan moo ko mën a gindi. mais tontu bi xaw na nooy de ñoo ko moom rek. ah ñun ñoo ko moom suñu xaalis lañ ci def kay te liñ ci génnee ci nguur gi la jógee ko ñu dem def ko ci te loolu lañ ñu wax loolu lañ ñu tegal kay man loolu laay gëm loolu rek laa gëm ba ma gis nag leneen lu nga xam ne moo may moo may dolli waat leneen waaye li ma jot a gis nii man loolu laa gëm. ko daal gëmuloo journal bi Figaro lu mu bind. déedéet gëmuma ko man gëmuma ko bis bu ma demee nag ba gis nag lu ma gën a leer dinaa soog a mën a mën a taxaw man a wax waaye man li ma gëm man man personnel li ma gëm man mooy ñun ñoo ko moom. ok man loolu laa gëm. Mhm. waaye loolu rek laa gëm. léegi nag su ma demee tey ba gisatuma nag loo xam ne li wala wala li ma gëmoon am na leneen lu ci teggeeku wala am na leneen lu ci dolli rek ma soo a xam ne kon mbir mi nii la demee waaye man sama gëm-gëm laa yor man personnel man man man personnel man loolu laa gëm ne man lii laa gëm te muñ ko du astafurlaa ñoo ko moom. ok tey ci wàllum rentabilité maanaam li terme bi di génnee ci wàllum koppare di mel li li doon état bi di prévoir ak li am finalement am na li nga xam ne moo di waroo est-ce que peut-être loolu. jàppaloo ne beneen firnde la par rapport ak li Le Figaro wax. wa xam nga xam nga xam nga tay par exemple dafa bëri ño xam dañuy tok ci grand place yi lek ba seen biir fees ñu dégg ay rumeur jër wax xam nga tay amul kenn ko xam man na dem ba laal yax bi ne xaalis bi di dugg ci terre bi ak li di genn fi la jëm wala fële la jëm wala li la ci fi waa wax wala lii la ci ñi wax tay lolu amul kenn ku mala taxaw yeen rumeur ci am rek di dégg di wax duma ci sori. dara leeraguma ci mais eh, état eh, bi wax na né dañoo perte lolu wax nañu ko Figaro également confirmé loolu wa xam nga ñom dañoo wax docteur abdourahman Diouf yag nañ ci def ay débat wa xam nga xam nga sénégalais ñoo dem ba tay par exemple tay nga yore ben peuple bo xamné tay ñu né légui ñom jëlutuñ terre bi xam nga hmm. kuy jaay bëgg nga jaral te chaque at war nga taxaw xol sa bilan li nga ci génné da nga perte da nga perte da nga dan da nga dan da nga wara perte ñom dañoo wara perte motax ñu perte perte nañ dañoo wara perte de chaque jour ñuy gagné loolu man sa nekk dañoo war a perte perte nañ. ok perte nañ. mais investissement bi ni mel. ah mel ni terre. ah waaw jël ay millions dugal ko ci ay milliards def ko ci ban njëriñ la am. ñu ngi wax mille milliards état bi wedd na mille milliards yooyu. waaw waaw ah, ah waaw léegi nag léegi nag après yow ngay àndal kii wax mille milliards kooku kooku génn ne affaire bi nekkul mille milliards yow léegi yow léegi boo tey boo doon tey di di kii kan ngay gëm man su ma neexee gëm mille milliards yi. état ñëw taxaw weddi ko waaye man li ma gëm mooy mille milliards lañ ci def. am koo xam ne taxaw ne moom gëmut li gëmut li gars yi wax la état wax la gëm ndax li ci def yëpp duñ gën wax ko. ok waxoon nañ fi stade bii ne dañu ko may wala nangam ak nangam wala affaire dañu ko may après du mujj mujjul fenn. Mm-hmm. ok ginnaaw bu bu bu bu coow li jibee mm-hmm. ñu bëree bëri dañuy wax ñëwaat ci wàllum autonomisation maanaam nes la ñuy def ba moom suñu bopp naka la ñuy def également ba yeneen entreprise yi ñu mën ko gérer suñu bopp est-ce que jàppaloon également ko implanter pour ñu waxtaanee ko. il faut gëm suñu bopp. il faut que ñun ñu gëm suñ bopp ñun doomi Sénégal yi gëm suñ bopp pour mën a jot suñ bopp. ok waaye fekkee gëmuñ suñ bopp rek pour ñu jot suñ bopp rek du yomb. il faut que ñu gëm suñ bopp pour ñu mën a jot suñ mën a jël suñ yëfu bopp suñ alal téye ko suñ loxo yi ñoo xam ne lii ñoo ko moom ñu liggéeyal ko suñ bopp. tey ñaata nit nga gis ne ñoo xam ne tey li ñuy jëli tubaab yi ñuy sénégalais yi ñoo leen ko dàq téeméeri junni yoon ñu jël leen booyal leen côté man maa ngi am koo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi gis nga wàllu wàllu arrondissement yi nii wàllu tali wàllu canal yi nii. tubaab yi dañ koy jël si dañu papam papam génn na àdduna defu fi ñetti fan tubaab yi jël si ko ne ko lii moom kenn mënu ci dara yow rek yaa ci man dara sax xalaat rek lañ ci xal te doomi Sénégal la Babacar Ndiaye mu ngi itali ok kon il faut que ñun ñu gëm suñu bopp nañ gëm suñu bopp ba pare. suñ gëmee suñ bopp ba pare nag ci la ñu soog a mën a indépendance bi ñu soxla dëgg-dëgg ñu soog ko mën a am waaye fekkee gëmuñ suñ bopp ku ñëw rek jaar suñ kaw suñ kow jàll rek mhm. loolu la ñuy jàppee xëy ñoo amuñ problème nañ jaar seen kaw rek jàll rek mu doon gañaa gañaa waaw ñu gañ ci ñun également ñu gañee si ñu loolu rek la waaye waaye nag gis nga buñ gëmee suñ bopp danañ dem ba liñ soxla ñun dañ koy téye suñ loxo ok billaahi wallaahi wa taala il faut que nag loolu ñu dem ba ñun ñooy xam suñ bopp xam nga tey sénégal lépp liñ fa war wax dafa bëri lif fi suux yëpp dafa dafa dafa dafa bëri mhm. tey boo seetloo réew maa ngi doy waa dëkk baa ngi xat te ba tey nii amuñ kenn ñaata ndaw nga teg nga toog tey ñooñu boo leen jëloon tey fay leen ñu commencé liggéey liggéey bi konoon passé nañ fi bu yàgg waaye il faut que ñu gëm suñu bopp comme li ma la waxoon laa lay wax ñu gëm suñu bopp pour ñu mën a pour ñu mën a jot jotaat suñu alal ok xam naa fi ñu koy jeexalee sax euh, fait de société la euh, askan bi aussi ñu ngi koy bàyyi xel mu di ab conseil interministériel boo xam ne état bi am amaloon na ko pour waxtaanee njëg yu seer yi waaye pour xool li nga xam ne moo jëm ci wàllum loi bi démb ñu dégg ne mbir mi dematul assemblée waaye yóbbu nañu ko conseil constitutionnel pour que ñu gën a baral affaire yi déjà loolee nag nga ko gisee njëg yi waxoon na ne wàññi nañ ko mais finalement boo demee marché li am ak li ñuy wax c'est diamétralement opposé euh, lan moo waral loolee. man avant ci décembre dama déggoo ñu ne le premier janvier dañuy wàññi luyaas bi ah, dañuy wàññi nangam dañuy wàññi nangam waaye ba tey déggoo ci dara. Mhm. yaa seen dégg. Ah. kon loolu état war na cee gën a gaawal nu mu gën a gaawee mu gaawal ko. ñu wàññi dund gi gis nga réew xam nga lu koy doxal na dund gi wàññeeku. Mhm. faj gi nit ñi mën a faju bu baax ñàng mi gën a dox bu loolu bu ñu ko defaree rek ñun liñ bëgg rek mën nañ koo am.

Euh, dafa bëri ñoo xam ne jaaykat yeeg ñoom dañu leen ba xam ne état dañu xam nga xam ñoom bu ñu déggee loolu ñu wax. Hmm. dañu ne ah waxu état la rek man de du ma wàññi. léegi yow ki ki ñëw ci bitig bi nga boole ko ba police ñëw ci moom lu muy njëkk def nga ne ko léegi daaw dañ lay gannaaw yow wàññi wala ñu kii mu jëkkati benn cent mille ne la nangam am demal yow noppi continué waat di jaay jaayam kañ lay réew mi di dox. Hmm. kooku bu gëmoon boppam duñ ko defal loolu il faut que tamit ñu gëm suñu bopp waaye nag dañ ñu gaaw dimbale ñu sonn nañ. est-ce que mesures yi nekkul mesures yoo xam dañ koy jël sans ñu réfléchir si sans ñu xóotal si sans ñu def duñ ci xalaat dañuy jékki-jékki rek génne benn décret rek wax buñ pare te ñett fan lañ ko après teg ñu ñu waat ñaata ñaata ñaata yoon lañ ko fi benn affiche taf ci naan wàññi nañ diw nangam wàññi nañ ceeb nangam wàññi nañ ceeb nangam isu loolu am na dañ koo taf rek sànni ko ci internet bi. kon hmm? nañ recruter toll ci biir jeune pour que ñu saytoo. waaw léegi ba léegi nii léegi nag moo tax malay, wax ne la am ci yenn wax yo xamne ne jarul nga ci dóor sa dom man buma ko déggee rek dama nan xam nga kañ la koy gëm ma dem ba tek ci sama bët waye fek ñu ngi koy wax ni ci télé bi rek man duma ko gëm ok waaw lan nga japp ni mom lañ wara def de façon globale pour que quand même askan bi wara mëna sentir sen bop ci wàllum luwaay beeg wàllum jégee yeneen nak yeneen yi nga xam ñu ngi koy jankwanté actuellement. ni ni ñi gënné di manifester wu mm-hmm. hmm mm-hmm. taxaw wane dara naqarlu ko méttilu ko nañ ko génn def ko waaye tey am na ci ñoo xam ne sax da ngay génn di ko kaas xam lu ñu lay wax mhm. soo bañee rek sa moroom nangu dañ na dañ naan la da ngay taxaw di kaas tey ma nekk ci benn kër di wax ne loyer dafa cher dafa nangam wala ma jël waa kër gi ñu mu fa bokk luye ba wax ak ñoom ba pare am ñu génn ñàkk gëm sa bopp yolleeku wax ak borom kër gi kooku ñëw dolli la xaalis sax pour jël pour jël kër pour jël sa place mhm. kon kañ lañuy kañ lañuy jóge ko ci ok en tout cas kilifa gi ñu lay gërëm di la sant bu baax a baax ci déplacement bi wa ci kàddu am solo yi nga xamné rek jot nga ko partager ak mbokk internet yi ñu bayila nga joxe kàddu gu mujj gi ak euh, peut être message bi nga xamné mo nga bëgg a wa waaw gu mujj wala bala may wax kàddu gu mujj gi euh, ñun dafa am benn domaine bo xamné ci lañ nekk mhm. man limay may wax ci politique sax ok waye nak bo amé fo waxé da ngay dem nga jallalé li nekk sa biir sa biir xol bi nga génné ko bu dee wax nañ fi loo xam ne jaarul yoon ñu ngi jéggul ay doomu aadama lañ dañuy jub beneen bi ci des ci cadre bi ma nekk dama ciy gis ñoo xam ma ciy naqarlu mooy tey sëriñ si sëriñu léegi si am na ci ñoo xam ne ñu ngi génn di profité ci mbiram Ousmane Sonko mi di ci am lu nekk may sëriñu Sonko ku ko laal danaa def nangam is xam ne ñooñu duñ def dara. seen Cheikh Niass ngay waxal. moom ak keneen ak keneen. moom sëñ Cheikh ñees ak keneen ak keneen duñ def dara. yéen a bokk Kaolack de. ñoo bokk Kaolack ñu bokk même famille duñ def dara waaye kiy def dara du ko wax kiy def du wax dafay jëf. ok Ousmane Sonko ala xaal doomi Sénégal du du Malien du Guinéen du Burkinabé doomi réew mi la far force mu neex mu naqari da nga koy bëgg. Mhm. est-ce dégg. beneen bi ci des mooy sëriñ si nga xam ne tey ñu ngi topp tey suñ suñ doom yi nekk ci biti di leen nax ci seen alal yi di lekk seen alal yi mhm. ak sëriñ si nga xam ne tey dañuy xëy rek génn duñu wax safa duñ wax lu baax mukk lu bon rek la ñuy wax suba accident dina am deret dina tuuru nangam nangam ba kañ isa mhm. loolu loolu loolu loolu loolu yow doo yow yow yow mosuñoo gis nga nga nga nga nga gis lu baax di ko wax yow lu bon rek ngay gis safaan rek jigéen ñi dana am ñuy nàngam mara day taali góor ñi dana am ñuy dee accident yi dana bëri accident yàgg na fi dee yàgg na fi kon doo waxal Sénégal bànneex bu ñu war a mën a gëm amul isa xam nga ne boo duggee ci internet mosoo gis benn sëriñ mukk bu génn ne dossier bii nii wala coow lii dafay sedd guy jàmm rek ci am mus nga kaa dégg. dañuy gën a xam rek de xam naa. dañuy gën a xam naan seen produit la ñuy jaay. seen produit la ñuy jaay suba accident dana am nga xëy suba accident am ñu ne nangam barki démb xoolal Touba la fa la fa la fa la fa lakk ci marché ba. te benn waay moo génn rek wax ko mu tombee bi mu amee rek ñëpp daw utali ko ba pare da ngay gis ñoo xam ne dañuy bind ci suuf naan la kii nangam rek la man duy wax dëgg mu ma lekkal 3 millions mu ma lekkal 2 millions man maa ngi am ñoo xam ne ma xam naa leen ñu ngi bitim réew ñii ngi Amérique ñii ngi Suède ñii ngi feneen ak feneen wallahi dañ may indil ay dossiers yoo xam ne ci ay sëriñ yoo xam ne ñoo jël seen alal yi léegi loolu ba kañ waaye nañ ragal yàlla ci li ñuy def nañ delloo suñ xel ci yàlla xam ne dee dafay am adduna bi buñ ko toppee baña dem jaamu ji yàlla بالله والله وتعالى أنا نيدي نيدي نيدي غنو نيدي نان ديلو سون خالتي يالا نان واخ نيت ني دغ نان باي دي فنت كو تي تاجول تاي جوخ كو بن مسالا بور مو تاجول كو دودم ماك نيوما يام خامو ندار رك الف فنان واي نيو غنا بري واخ سي ادنا بي نان ديلو سون خالتي يالا نان ديمبالي نيت ني اسكان بي اي جيجن اي خالي يو دي سي خولن لي ام ييب ويخالي نانكو ndax dem nañ ci ben tiital leen wax leen ay yoo xam ne tegu ko fenn beneen bi may tëjee mooy ñaan yàlla jàmm ci réew mi. Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla defal jàmm. Macky Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mhm. bu leen yàlla defalee jàmm jàmm day am ci réew mi. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla dossier yi daal yàlla mi ko yëkkati yàlla na ko yàlla suul moom sedd guy. Mhm. comme glace ni muy seddee rek yàlla ko dossier bi seddee. jërëjëf troisième mandat bii ñuy wax tamit ñu ngi ñaan yàlla bu dee dafa nar a indi histoire indi nar a indi jafe-jafe ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla seddal. yàlla amut lu mu mënut. amut lum lum tëlewut ndax nguur koo am nguur ak ci nguuram nga ko jëlee mhm. di jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla ci weer bi mooy weer rajab yàlla na yàlla defal ñu jàmm yow defal la defal télé bi ak ñi fiy liggéeyee ñëpp ñu ngi fekk a yokku télé bi ba mu nekk a mag ba li ngeen ci bëgg defal yombala leen ko yàlla am na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal bi jaay rasulullah sallallahu jërëjëf merci beaucoup en tout cas solo ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax ci loolee xam ne rek moom la tëjee xam naa du ñàkk ci yeneen ndaje yoo xam ne di ko séq ak ñoo xam ne ñu fi bu ko defee boobee nga gën yaatal par rapport ak ponk boobee nga xam ne rek yaatal ñoom ci li nga xam ne moo gën a fës ci wàllum actualité d'ici là bien euh, bon appétit jërë ngeen